sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baad فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن المساجد بيوت الصالحين تتعلق قلوبهم بها ويأنسون بالجلوس فيها وتطيب قلوبهم بملازمتها فهم صواريها العامرة وأوتادها الساهرة وأوتادها الساهرة ومنائرها العامرة ومنابرها الزاهرة يعيشون فيها كالأسماك في البحار إذا خرجت منها ماتت قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى المنذري في الترغيب والترهيب وغيره عن ابي ذر الغفاري رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد mbokk jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ndax kan loolu mooy dénkaane sunu borom tabaraka wa taala bi mas di dénkaane naka jekk moo tax mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne wax wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah dénkoon naa ñi nga xam ne ñoom laa masoon di wàcc ci ñoom ay téere dénkaat leen yéen ne leen fu ngeen mën a toll na ngeen ragal yàlla ragal yàlla nag mooy topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem ba sellal ko mbokk jullit yi ñu xam ne jàkka mooy kërum nit ku baax jàkka ci la xolum nit ku baax di aju jàkka toog ko mooy wér li nit ku baax ci jàkka ci la xolub jullit di sedde waaye ci la am xelam di dale jullit yi ci biir jàkka dëgg dëgg ñooy ker yu jàkka ya ndax ñoo ko nekk ñoo ko yoroon julli gee ñooy sooroo di jàkka ya ndax ñoo koy wone ci seeni jikko seeni melokaan jikko ya jullit ya ñooy min bari jàkka ya ndax seeni kàddu lañ fay dégg jullit ba ci biir jàkka daal dafa mel ni aw jën ci biirum ndox soo ko génnee rek mu dee kon jullit ba su dematul jàkka bu ko yëgut itam dundatul ndax xolam dundatul ruuxam ci boppam dundatul kon jàkka lu am solo la moo tax sunu borom tabaraka wa taala mu ne ñiy dundal jàkka day ñii la mooy ñi gëm yàlla gëm ëllëg ba noppi nangoo taxawal julli ba noppi nangoo joxe asaka boole boobu ragaluñ kenn nag ku dul yàlla borom bi nee na ñii ñëw dundal jàkka innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmi al axiri wa aqama alsalata wa ata alzakata wa lam yaxsha illa allah jëlee nañ ci Abu Hurayra radiallahu taala anhu ci xadis bu wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi wax ne jàkka yi day am nañ ay keno keno ya nag jublu ci keno yi ñu tabax waaye nit ñi sax te jàkka ya seeni jaamu yàlla duñ ko tarde keno yooyee nee na malaayika yi ña nga toog ak ñoom maanaam ñoo ñi nga xam ne duñ dugg ci jàkka saa bu waxtu wa jotee nga fekk leen fa nee na ñooñu seen wéttal mooy malaayika yiw yi ndax dañ faa toog ci bind seen jëf ju baax yi ñuy def nee na bis boo xam ne gisuñu leen ñu jàkka ja sax malaayika yi dañ leen di laaj teer ci waa ana diw mbaaru dafa tawat mbaaru dara dafa gàllankoor ndax miin gëj ko miinoon ca jàkka ja nee na suñ feebaree sax malaayika yooyu dañuy ñëw di leen seet si te ko yëg ñaanu malaaka dinañ ko delloo nee na boo xamee ne jóg nañ nekk ci aajo suñ ko yëgoon suñ ko yëgee ak suñ ko yëgul malaayika yooyee leen mii noonu ca jàkka ja ñi nga ànd ñoom di leen dimbali ci seen aajo yu adduna seen aajo yu àllaaxira mu teg ca moom yonente bi alayhi salaatu mu nekk ci saxoo bi toog ci jàkka maanaam bari fa lu mu fay nekk am na ñetti mbir yoo xam ne mën na ko faa jëriñoo yoo xam ne moom dañoo teew waxul yoolu ëllëg waaye nee na mën na koo jëlee mbokk mu baax moo xam ne ci jàkk gi ngeen xamante loolu di am nga xamante bi ci mooy boo xam ne da ngeen a xamante fekk yéen a ngi jaamu yàlla nee na wala nga xam ne da nga koy jëriñoo ba faw ndax jàkk ab jàngukaay la tey kon danay jàngale di ubbi ab darsu di jàngale it day jàngale nee na wala yërmaane xam ne da nga koy xaar bu ci sa borom tabaraka wa taala kon ñett yi da ko koy jëlee mën nga fa jële mbokk mën nga faa jëlee xam-xam mën nga faa jëlee yërmaande yi suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla jàppandalal loolu rawatina ci suñu jàkka ji jëlee ni ci Abu Darda radiallahu taala anhu mu dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jàkka li mooy këru ku ragal yàlla jàkka nee na mooy këru ku ragal yàlla aajo ci doomu aadama aajowoo jàkka su fekkoon ne xam nañ fi jàkka toll dëgg dëgg dëgg danañ yëg ne moo gën a tar ni aajowoo ab dispensaire ndax dispensaire fajukaayu yaram la jàkka nag fa la ñuy faje ruux yi fa la ñuy faje xol yi jàkka fa la ñuy tabaxe xeer yu tekki dara yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeer yu tabaxoon nga xam ne ñoo jóg ubbi àdduna tasaaroo jot li lislaam ba agsi fii tey ba taxaw di ci wax xeet woowu ci jàkkali ngeen tabax joo xam ne soo ko doon xool ca jamonoom ci wàllu yemamaay jàkkala joo xam ne yu yemamaay la ci wàllu jëm waaye nag ci wàllu liggéey foofa lañ tabaxi góor ñooñu ba génne leen ñu tasaare lislaam ba àgg fépp foo xam àgg na fa tey kon aajowoo jàkk moom jéggi na dayo lii nag moo tax jaadu na jàkk képp ku ko tabax nga jox ko itte mu bañ a doon ak néeg boo xam ne nit ñi dañ fay daje julli suñ julli tëjaat ba julli jotaat bi ubbiwaat jàkk ak liggéeyam ci poy ëpp na loolu moo tax jaadu na képp ko ubbi jàkka mu itteewoo mbir yi may bëgg a tudd ndax jàkka ya mën dund ba noppi dundal ba ca jëkk mooy xottoog àjjuma lu mat a bàyyi xel la ndax mbooloo mu bari ñuy àndandoo jóge seen kër ànd ak xol yu laat dikk ngir jariñu kese sunu borom tabaraka wa taala ci njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu tere xutbatu ak juma noo xam ne terewuñ li leneen muy kii ñëw jaamu yàlla ko yëkkit ci jàkka ji loolu képp ko fi indi kon nekkul conférence boo ne invitation la bu ñuy jox nit ñi ay carte ni leen bis tàngam na ngeen ñëw ndax dana julli ajuma déedéet nit kaa ko xamal boppam waxtoo jotee yittey boppam ak xewlafteeku boppam moo ko yëkkati ci yéene boppam yëkkati nag bokkul ak li nga xam dañ koy dafa kàtt mu ñëw kon loolu mooy benn topp ñaareel biir jàkka ji ba toog dañ koo digal ne bu imaam xasee bi xob ba sañatoo wax cel bu dee conférence bi nit nga toog ba mu yàgg nga gis ku ñëw ci microphone bi ne nit ñi déglu leen loolu kenn du ko gis ci aju ndax suñu borom moo ko organisé boppam suñu xasee toog kenn sañatu la wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku wax sax amu ajuma fas kon julli tisbaar ne julli bu manqué ndax kon suñu borom tabaraka wa taala organisé ko noonu na mbooloo bi jóg ak xol yu sell yooyu ñëw toog di déglu déglu bu rafet boobu yi ñu génn ci jàkka loo xam ne njëriñ li ñu yóbbaale la ndax su loolu amul ñaareel ba moo di jàkka dafa nekk jullikaay nekk jàngukaay moo tax su yàlla defee xéewal ngeen ami classe ci kaw alhamdulilah waaye classe yi ci kawit néew nag jàkka mën naa doon jàngukaay mën naa doon béréb boo xam ne ñi soxlaa rafetal seen njàngum alquran ak ñi jàngul woon dara ci alquran seen i liggéey jàllankoor leen ñii ay góor wala ñii ay jigéen ñu fexe ba am ci jataay boo xam ne waxtu wa jotee ñu ñëw ñu jàngal leen ko dara ci seen diine rawatina su ma nee rek diggante waxtu jullit ak waxtu gee ndax dana fekk ñu doon liggéey wàcc kon jàng jàngukaay la boo xam ne góor ak jigéen mën nañ fa ubbi ay xalaxaat yoo xam ne pour jàngale alquran la ñetteel ba mooy jëpp jàkka ju taxaw bu ne war naa am commission boo xam ne ñooy saytu jàkka yi ndax lépp lu nekkul ci ay loxo bu mën a doon nekkatul ci loxo maanaam mbiram du tegu ci yoon kon faaw ñu organiser ko wut commission boo xam ne ñii ñooy waa jàkka ji ñoo koy organiser ñoo yore lépp loo xam ne lu ci jëm la ñeenteel ba na jàkka fu mu ko mën xam-xam ñu ñëw dajeeg waa koñ ba dajeeg mbooloo bi waxtaanal leen ci seen diine ndax ñu beesal xar kanam ya ñuy faral di gis te jàkka ji ñu gisaat yeneen ña doon jàngale ña doon jàng si ñëpp mën a jëriñu waat lu bees juróomeel ba moo di jàkka ju nekk war naa am donte benn bindu xam-xam boobu la jàngale alxuraan bi ma doon wax léegi waaye bindu boo xam xam-xam lañ ci jàngale moo xam xam-xam boobu day jëm ci wàllu tawxid wala day jëm ci siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala day jëm ci fiq wala gépp fànn boo xam ne fànn sharia la jaadu na boroomu xam-xam donte benn yoon ci semaine la ñu ubbi ko bind xam ne def ko ci waxtu woo xam ne ñëpp danañ am jotu ñëw fekke ko ñu jàngal leen seen diine juróom-benneel bi mooy jàkka gi taxaw ju ne war naa am kees boo xam ne dañ koy teg ci loxo yu wóor loxo yu maandu loxo yu sell ko am sa looy def lu jëm ci aw yiw nga def ko ci kees googee su doxal jàkka ji jotee ñu doxal ko ci ndoxam ak courant ak liñ ci bëgg a yokk ak lu mel noonu juróom-ñaareel bi jàkka ji war naa am benn ndaje ak jataay boo xam ne dañuy wax ne diw sàng kilifa sàngam ak kilifa sàngam ak kilifa sàngam ci koñ bi ñii ay membre lañ ci jotaay boobu muy benn conseil boo xam ne saa bu mbir teewee mu jar waxtaane mu ñor julli gi dañuy def benn ndaje boo xam ne extraordinaire lay doon ñu bokk toog ñoom waxtaane mbir moomu mën a xam waa koñ bii di koñ sàngam ñoom nan lañ ko jëfee bu dee seen koñ bii di koñ gëm yàlla ñu ne ko ñii nangam lañ gisee mbir moom yi xew def seen déclaration bu ko jaree jaaru na jàkka ji ci yéen ci war a dolli xëy na sa jombul amagut waaye jàkk ju nekk war na koo am mooy am li ñu tudde morgue morgue nag muy jërëb boo xam ne bu nit wàññi ko ñu teg ko foofa waajal ko waaj bu sell ni ko lislaam santaane tabax ko rek ci doyut waaye jaar nañu tàggat ay góor ak jigéen ci wàllu sang néew ak sàng ko ndax loolu ñu bare bare buñ ci tàggatu boo xëyee xëy ne leen kaay leen sang néew bi amaana duñ ko ñeme sax waaye dañ leen di tàggat nag dañ ñeme ko waaye xam itam ñu koy defee ci wàllu sharia mu doon ay góor doon ay jigéen ndax góor mooy mën a sang góor jigéen it mooy mën a sang jigéen su ko defee mën koo sang sang ko teg ko fii ci jàkka ji ko dem dégg ko boromam loolu ci yi mën ta ñàkk moo ko war a organiser euh, askan bi bokk na war a mat a bàyyi xel ci jàkka ji mooy di organiser ay ndog moo xam ci weeru koor la moo xam ci bis yu rafet yi nga xam ne dañoo santaari ñu di ko woor ci at mi su ko nit ñi wooree bu waxtu wa jotee ñu bokk daje bi waxtaane seen diine bokk dox ndox yooyu nag la ciy cosaan mooy waa jàkk ci ci seen bopp ñu daje leen ko seen bopp su seen waxtu jotee dox jotee ñu ñëw dikk dox suñu amee ndimbal lu jóge bële it wala feneen tàbbi ci seen i loxo ñëw ci keesu jàkka ji ñu ne leen lii ndogu la su boobaa loola it ndimmal la ñu boole ko ca waaye nañ jàpp ne jàkka ju ne yéen waa jàkka ja daal yéen a war a def foofu seen programme bopp yéen a war a dajale seen ndogu bopp boo ko leen si loxo jàppar di fekk ba moo di jàkka palaasal ci askan dafa rëy jaaru na ci lu bokkul ak conseil boobu ma tuddoon léegi ñu sosaat benn commission boo xam ne la ko tax a jóg mooy islaaxu zaatil bay fu ñu ne ab ñagas ñagas am na ko ci diggante askan sàngam ak askan sàngam diggante kër sàngam ak kër sàngam ñu yebal kilifa yooyu ñu tànnoon nga xam ñu am xikma lañ ñu am xel lañ ñu xam doomu aadama yi ñu xam sharia lañ ñu mën a ànd seet ñagas ñagas yooyu am diggante diw ak diw lu ko waral ñu jéem ko saafara ba jàmm rek di dox diggante jullit commission bu mel noonu dafa war di am ci jàkka ju mën a lii lenn la ci ay tomb yoo xam ne jàpp naa ne ne jàkka jël na ko jox ko importance bay góorgóorlu ba taxawal ko kon jàkka dana def lu rëy rëy rëy ci aw askan danañ xam ne mooy moo ëpp importance leneen lu dul moom ci xeetu lislaam moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ci péttee yoo xam ne saxaaba yi mosuñoo wàcc ab dëkk loolu la ñuy njëkk a taxawal mooy jàkk bala ñoo am buñ tëdd dañuy lijjanti ba am fu ñu jullee ba noppi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàng ngeen gàddaay ñëw Madina dañ ne cëpp rek wàcc ci kër jàmbur boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam amagul kër ñu koy tàmbali ci jàkka yi jënd place boo xam ne fa lañ koy def nit ñi tàmbali di tabax jàkka ci dañ ko man kon jàkka boobu la toll ci askanu lislaam Abu Dar al-Ghifari yi <coughs> nettali nañ ci xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku tabax jàkka doonte dafa toll ne baag bu mu tax yàlla tabaxal la kër ca àjjana kenn ku nekk xam na ne jàkka du toll ne tàggum bi ndax waaye daf naa bëgg a wax ne jàkka ji bi ñu koy tabax ñu ne ah nañ ci def nangam naanam kenn manqué na matagul nga jël sa benn cinq franc def ca loolu toll na mu tàggum bi ndax gën a dugalal ma loolu ci jàkka ji nit ñaa ngay organiser ndogu nga ne defal ma ci sama vingt cinq franc yi wala sama cent franc yi dugal ma ci loola toll kon lépp loo xam ne def nga ko ci biir jàkka ji li koy di ko jëmale kanam moo xam tabaxu jëmmi jàkka ji la wala tabaxu dundal liy dox ci biir ji la lu mën a doon tam sell jàppal ne suñu borom tabaraka wa tabaxal na la gën ci àjjana kon nag yaa xam noo ko gisee kër toll ni la nga joxe ci jàkka ji la toll noona <coughs> jàkka yi ñuy ubbi nag jàkka la xam ne noo ngi am yaakaar di amug rafet njort ci ne ci koo taxawal ci ko tabax ci alalam dellu jaam la ci jaamu yàlla yi nga xam ne seenu dund dañ koo jeexal ci liggéeyal xam-xam ak woote ci lislaam ak def lu rafet jëme ko ci lislaam muy kilifa bu baax boo xam ne man xam naa ko diir bu yàgg sama xamanteeg moom day dellu ci mille neuf quatre-vingt-six 1986 booba laa njëkk a xamante ak docteur Ahmad Abdi al Qamidi mu doon jëmm joo xam ne xam-xam rek lañ ko mos a xam jàng ko ak jàngale ko ak woote jël islam ak ko boobu bi nga xamee ne waxtaan naa sëriñ Kilimaan Jaay mi nga xam ne kenn ci ay la woon jege woon ko loolu itam bam gis ne liggéey bii da ko war a taxaw man ci ñun doon jox ko lu bare bari ci laa bokk mu mujjee wax ak man nga xam ne gannaaw bi ay bis la dundaat wala soriwu ko ñaari mbir la wax ak man yoo xam ne bu ci ne da koo baamtu ay yoon benn bi mooy jàkka nañ àgg tey nañ ko teg ci loxo yoo xam ne dañuy jàngale lislaam du leer nañ loolu mooy benn bi baamtu na ko ay yoon beneen bi mu ne sama téere yii nga xam ne moom laa amoon dama koo jox seen daara joojee muy école ba la nga xam ne moom laa yor ci Pikine téere yépp nañ ko yóbbu foofa te téere yi ñëwee maa ngi lay dénk lii mooy dafa am téere yu nekk ci biir yoo xam ne téere philosophie la yooyu na nga leen tànn génne leen teg leen fële téere yi ci des nga xam ne lislaamu kese bu sell lay jàngale nga teg ko nga xam ne gone yi danañ ko mën a jàng ndax téere yu mel na le mën naa lor boo ne am njàngam soreegul kàddu yooyu la mujjee wax ak mu am ay fan yu néew a néew ñu ma génn na àdduna ko kooku yal na ko yàlla yërëm yal na ko fay yiw wi nga xam ne moom la doon def ci lislaam ak ci julli yi kon euh, noo ngi ñaanal doomam yi nga xam ne ñoo ñëw gannaawam te wéy dénkaane boobu ndax kat wala fi dañuy wax ne ndénkaaneel ndee bu wéyee dund a tax bu leen neexoon mën nañu ñëw ne loolu xalaat suñ tàppaloon waaye nun alal ji beneen xalaat lañ ci yor waaye dañoo ñëw na ko seen bàyyi waxe woon ñu defe ko noonu ak rafetal ko ba dolli ca sax ñi nga xam ne ñoom la ko di jaarale ci ñoom itam ba liggéey bi sotti muy suñu mbokk Ibrahima Sow ak Cheikh Ibrahima Ruhayli ba doxoon ci diggante ba te nekk Madina ñooñu ñëpp it kenn ku nekk xaw ci taxawaay boo xam ne def nga la la ca war fekk bi sëñ Njiriman Jaay bi nga xam ne moom it mooy ndey mbili bi ndax liggéey bi ci kawam la jëm si ci moom la jëm nar a nekk limaani jàkka ji kon ñooñu ñëpp it ñu ngi leen di ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mu nangul leen bépp effort bépp liggéey boo xam ne def nañ ko ci te yàlla rek tax yàlla leen ko yàlla fay ndax kat liggéeyal islam moom dafa doon lu yomb te yaa ndax kay joxe ki ko tegtal ne ko ñu aajowoo ngeen mu joxe foofa yoon toll ne la mu joxe ki nga xam ne moom lañ ko jaaree ne ci loxoom ne ko sarax baa ngi jottali mu jottali ko am na yoon bu toll ne yoonu sarax ñañ ko def taagal ñoom ca dundal la nga xam ne moo taxoon mu jógi tam ñooñu seen tuyaaba yàlla rek moo xam ne mu toll kon daal jàkkaar gi yoo xam ne ubbi na buntam du jàkkay ma sàmba du jàkkay ma demba jàkkay jullit yi la ndax xam nga ne jàkka yàlla ko moom wa anna al masajida lillahi jàkka xam leen ne yàlla moo ko moom kon waa quartier bi ñoom la yàlla tànn baaxe leen sampal leen di jàkka yoo xam ne ñoo ko moom seen jàkka la teg ko ci ay loxo yoo xam ne ñoo koy saytu ñoo leen ko yoreel muy liggéey liggéey boo xam ne mooy li jullit yëpp bokk itam nag l'islam boo koy liggéeyal te ba li yëpp bokk te da ngay seet li jullit yëpp bokk su ko defee ñu di ko dundal bokk ci jàkka bi moo tax dama leen di wax ne bépp jàkk bu taxaw te fas yéene liggéeyal l'islam nañ góorgóorlu ba mu am beneen couleur bu couleur bu rek ndax jullit yi bu ñu wéeree ni baaw ñu jaar si bi ñu wax ndëre maanaam alquran ak sunna jullit yëpp ko bokk kon ku ko woon gannaaw ku nekk sa mbir aajana seet moo tax jàkka ji taxaw te bëgg a boole jullit yëpp te bëgg ta tàqale na xool la jullit yëpp bokk mooy téere bi yàlla wàcce woon ci yonente ba sallallahu alayhi wa na ko yonente boobee leerale woon ci ay waxam ak ci jëfam mu jàngalee ko noona te yam ca lool loolu suñ ko defee dana doon béréb boo xam ne bérébu leer la boo xam ne leer dafay jolli dana doon béréb boo xam ne day boole te du tàqale dana doon béréb boo xam ne day defar ko lu yàq yal na sunu borom tabaraka wa taala jàpp na loolu allahuma hayyi lana min amrina rachada waj'alna hudaatan muhtadin allahuma ahdim bi salihati a'malina waj'al khayra ayyamina yawma nalqaak rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك Thank you.